asalaamaaleykum asalaamaaleykum euh, mbokk internet yi asalaamaaleykum mbokk euh, auditeurs yi maa ngi leen di nuyu di leen di ziar seen mbokk la seen xarit seen am du jàmm Cheikh Bécaye moo fi jaaraatoon ba léegi ci émission cofeel gi ànd ceeg euh, seen STV ba léegi rek ñu nekk fii ci Petit Mbao Petit mbaaw nag tey nag moom kawteef lañ leen di won maanaam tey waxoon naa leen ko nee naa leen dinañ ànd ak yéen fépp dinañ duggal yeen fep fa tabarakallah tey nag dañoo ñëw Petit Mbao fekk fi ki nga xamantene moy mooy Traoré joggé ba Mali waaye nak euh, di yëngu ci lu ne ci walu rap ci wàllu jinne hémorroïde euh, cancer euh, lu ci baree baree bari jigen bo xamantene sax da nga télé am dom bo ñëwé fi mom da koy da ci yëngu ak leneen leneen mais nak dañuy daal dem ak yeen ak yeen mom waxal ko bopam donte dégg olof man nag la ma dégg asut néew dinaa ko dinaa leen ko jottali waaye nag euh, bool di bëgg di déglu di xool di gis lu ne waxoon naa leen ko dinaa fi dem ak yéen fépp da ngeen di def euh, suñu euh, site da ngeen def www point sen stv point net bu dee ci youtube na ngeen def Sénégal streaming tv kon leer na Sulaiman uh, uh, Abedi. Traore. Awar sumu Obedi. Alhamdulillah. Korbasila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dija. Anna na jaranje. Ñu nuyu ni ñu wax ak mom ni deggu olof waye mu doon ko keman tay waxo na len tay nañ dugg ak yeen ci jinne yi jinne yi da ngeen degg baat yeeg wala len leneen ak leneen ci ne danañ ñew ak mom ci loolu euh Sulaiman i jamu Traore. Traore. Aha. Sulaiman ila ila bara jang ila bara ikam nak jang. bon ne ka baara kɛ ne ka baara ye furakɛli ye mhm. ne mɔgɔw jara ne mhm. mɔgɔw furakɛ mhm. bon mɔgɔ min bɛ ni i tɛ cɛya la cɛyala gosi b'i la ne b'i furakɛ muso min bɛ ni i tɛ den sɔrɔ fifififewu n'i nana ne fɛ ne b'i furakɛ bon cɛ dɔw fana bɛ rɔ u laban man ɲi u laban man ɲi i bɛ problème créer muso la ka sɔrɔ muso tɛ ceeɗu bero lawa surtout dendu dendu fari la dende mm-hmm. lawa la mm-hmm. ni nana ne fɛ ne b'i furakɛ ne b'i furakɛ i uh-huh. y'a faamuya ngeen dégg euh, loolu mu wax leer na dafa ne maanaam euh, fii képp koo xamante ne da nga am problème am doom boo fi ñëwee sa aaju da day faju euh, fii ci Petit Mbao mu ne boo képp koo xamante ne da dem Europe maanaam wàllu kéet sonal la sama gars yi bëri ngi Europe bëgg xaaj ba bëgg a dee mais kéeg moo leen sonal te ko sax na ngeen góorgóorlu ngeen ñëw ngeen dégganteeg moom su ko defee rek euh, seen yoon mën a yomb pour ngeen mën a ñibbisi lépp da koy faj léegi nag moom même boo amee ay jinne bu la jinne duggee boo ñëwee ci moom dina ko génne tuubal ko nekk ak moom incha allahu rabbi boo amee ay rab yoo xam dafa la sonal mu tere la am boroom kër wala soit góor mu tere la am jabar bo fi ñëw rek lépp dina faju waaye pare gu ñoog moom iko iko iko i ko i ko bee ni kala eh, ñi mm-hmm. ñi mu munate ñi min ba min bi jax gan ni ni min flen ñi mamuno mafo amma fo ngure gresegi kumbu kumbu ngure gresegi gresegi awa ñe jodi ah. ñe jodi ko mo n'i nana jinɛjugu de b'i la ou bien fa de doni i la fa de doni la mhm. b'i ni ndeysaan i y'a faamuya de mhm. mɔgɔ muso min funu bɛ n'i lafiyalen furu la i lafiyalen don furu la mhm. i bɛ cɛ fɛ n'i nana mhm. ne bɛ ne bɛ n bɛ baara k'i ye i bɛ furu sɔrɔ cɛ min fɔnɔ n'i lafiyalen don muso la i lafiyalen don muso la i m'a sɔrɔ fiyewu yɛrɛ a di ko b'i ye n'i nana ne n'a baara kɛ n'ala sɔnna a bɛ kɛ ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn muso ye. yaafumaane bii nag moom ku deful deux ans ci école euh, bambara doo ko dégg foog nga def deux ans ci école bambara nga mën koo dégg euh, gis ngeen foofu ñu moom mu mu may expliqué léegi foofu la xam li nekk maanaam foofu lay waxtaan ak li nga xamante ne mooy ay raw xaanam euh, wala ay jinneem te foofu la foofu lay déggante ak ñoom xëy na ñun duñ ko gis. ñun duñ ko gis mais moom mën na déggante ak ñoom mën na gisante ak ñoom mën na jëflante ak ñoom nee na képp koo xamante rab dala dugg wala nga am ay problème da rab maanaam ay mu mu tere la am doom wala feebar yi sew la dal fii la lay fajee fii la fii la fii la lay fajee te bu bu lay seet aussi foofu noonu fii nga gis noonu mu am morso bu xonq bi nii euh, foofu la rab yi di ko wax ne ko lii moo la dal lii moo ko dal lii moo ko dal lii moo koy faj lii moo koy dindi lii mooy sarax bi euh, loolu foofu loolu lay njëriñ léegi nag euh, fan jëm ak yéen mooy ku bëgg a seet ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Traoré da ngay jël ci numéro mu ngi affiché noonu ci kanam écran bi da ngay def 77 nga def 220 296 81 76 wala nga def euh, fii nga def 77 euh, nga def 620 26 36. wala nga ñëw ci 70 nga def 680 89 13 xaca ñu daal di demaat yéen euh, iko iko iko fenko jinne hmm. eh, iko jinne ba ya mum fe bon esikini bon ne bɛ fɔ ne bɛ uh-huh. ne ni jinɛ bɛ baara kɛ cogoya min na quoi uh-huh, uh-huh. jinɛ yɛrɛ filɛ nin ye quoi sababu de d'i ma i n'u bɛ baro kɛ sababu la quoi mitti jine refle mogo tayi mogo tayi yafumude mais nu mhm. ya mhm. sababu dimo i bo baradi di yafume de bon jinɛ baara kone mani ke cogo o mhm. n'i na na fɛ ni jina de b'i nɔfɛ ne b'a genga bi bɔ ni ne b'a bɔ i nɔfɛ san i ko i ko jina jinɛ i ko jinɛ ma sɔrɔ amasoro dunia jan a ma sɔrɔ duniya a wala dunuya jinɛ mhm. mhm. ale de bɛ adamadenw bɛɛ mara jinɛ bi mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ taama jinɛ mhm. b'i mara jinɛ gɛnni suguya ka ca mɔgɔ tɛ jinɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ pewu mɛ n'a bɛna ni sitanɛ ye nɔfɛ dɔw bɛ n'u bɛ furu kɛ jinɛ b'a tiɲɛ muso dɔw bɛ n'u bɛ furu kɛ jinɛ b'a tiɲɛ a mana don furu o furu la a bɛ tiɲɛ dɔw bɛ cɛ dun bɛ n'u y'a furu kɛ jinɛmuso bɛ daw fɛ a b'a tiɲɛ u ni muso si tɛ ɲa n'i nana ne fɛ ne b'o gɛn ka bɔ i la ni ala sɔnna i n'i ka jinɛ a ti a ti a ti mako sa tugun i y'a faamu mɔgɔ dɔw fana bɛ u ka jinɛ nafolo can u bɛ nafolo nafolo can b'u nɔfɛ kojugu n'u y'u bolo don fɛn o fɛn na a tɛ ɲa kosɛbɛ a tɛ ɲa i y'a faamu dɛ jinɛ b'o kɛ i bɛ taa dɔw u b'a fɔ baara b'i la u y'i baara dɛ u y'i kɛ fɛn o fɛn dɛ tiɲɛ tɛ dɔw ye kunnafɛn dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn jurumu ta i y'a faamu dɛ baara ye tiɲɛ dɛ mɛ an bɛɛ kana an bɛɛ an kana da bɛɛ kun ma de sa ni momi ya problème bara sotro bara bara pou mm. kata bara la ni mo ma fika ta bara la ya bara lo ya doje do ah. ima soro de la fele do la ou be la fele do teni de no fe ah. ou be la fele do fon e, fonctionnaire no fe ni nana ne fe ah ni na bara ka dimo na la sona ina teni mara wa kon sama gay di dok di buntu keri di ataya ñew len fi eh, ki nga xamne moy Souleymane Traoré sama gars yi nga xam ne débat rek moo leen ñor am amuñu liggéey ñu ngi taxawaalu rek ñëw leen fii ci ki nga xamante ne mooy Souleymane Traoré mu jàppal leen ngeen dugal seen dossiers yi nga mën a dem liggéey ndax euh, liggéeykat war na góor war na jigéen ci jamono yi ñu toll nii ndax jamono jii nii euh, boo liggéeyu sax anoon na sax mun nga am kilifteef trop waaye sax wax doodu kenn ko kenn ko fulaal dina oyof lool euh, wax ju oyof moom góor moomu ko bi moom war ngaa d'accord ci nga am say say kàddu nit ñi di ko dëggal mooy ci lan nga am nangoo ñax la ñaxlaf nangoo toj sa yaram nangoo liggéey euh, gis nga loolu la wax léegi-léegi maanaam euh, képp koo xamante da ngaa dugal sa dossier wala nga bëgg dugal sa dossier wala wuti visa boo ñëwee ci moom sa aajo day faju dina la jox ay acte nga dem fa nga déposé ko te incha allah rabi dañ koy jël euh, képp koo xamante ne da ngaa ànd ak rab parce que ñëpp daanaka am nañu ay rab hmm? tey say ah am na tey jii léeg nga gis nit rek jam nit ray ko ah jéeg-jéeg ñu ne démb pourtant démb ku baaxoon la am woon problème suba mu ñëw jam benn ray ko rab yee koy waral parce que tamit aussi dafa wax lu am solo léegi-léegi parce que rab yi dañuy nekkal ñun dañuy dëkkal ñun lu waral loolu mooy lan euh, boo xoolee àll yi bëree bëri tey toj nañ leen def leen ay kër rab yi fa dëkkoon yëpp nekkoon isolé ñu woon tey ñu ngi dugg ci biir nit ñi kon rab yaangi ci biir nit ñi kon nit ñi war nañu fagaru ci jamono bi nga xamante moy eh, tisbar la ak timis bi rab nan lay duggé nit danañ ko ko laaj légui euh nan nan lañ mëna def ba nga am rab dé dañ ci yow dinañ ko ko laaj nan la nga xamé né da nga am rab dinañ ko ko laaj ak yeneen ak yeneen dinañ ko ko laaj sans yi eh, mbé ñu ni mhm. euh jiné mhm. aka aka dum mo fee ñaar bon jiné ɓe ndu soro depuis demi sen nama wakati mhm. jinɛ bɛ sɔrɔ depuis denmisɛnnin ma waati mɔgɔ dɔw bɛ a bɛ fɔ bamananw b'a fɔ ko muso kɔnɔma n'i kɔnɔma don quoi i kana to ka bɔ fitirida fɛ fitiri waati timisi waati i kana bɔ fitiri waati fɛ bon kana sɔn dugu ka janfa su ka janfa k'i to yen jinɛ bɛ sɔrɔ o suga de fɛ quoi i y'a faamuya dɛ o jinɛ ninnu bɛ sɔrɔ o suguya fɛ muso kɔnɔma ka fitiri dafɛ taama ah, a man ɲi a man ɲi jinɛ bɛ sɔrɔ fɛ wala ani dugu tila deux heures de matin su bɛ ko k'i to yen dugu bɛ tila k'i to yen jinɛ bɛ sɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw jinɛjugu de bɛ sɔrɔ n'a ɲɔgɔnna fɛ n'o tɛ jinɛ bɛ mɔgɔ bɛɛ la jinɛ bɛ mɔgɔ bɛɛ la dɔw ta ka ɲi dɔw ta man ɲi bɔn ni i ta min na ni cani ye n'i nana ne fɛ ne b'i furakɛ i y'a faamuya dɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni a gɛnnen ka b'i nɔfɛ kuwa y'a o ye kelen ye fana muso dɔw fana bɛ u bɛ laada bila u tɛ ɛrɛgili ye kalo naani kalo duuru u t'a ye fo dɔw b'a fɔ k'u kɔnɔma don ah. fo dɔw b'a fɔ k'u kɔnɔma don k'a sɔrɔ u kɔnɔma tɛ o ye fibron ye fibron n'i nana ne fɛ ni n'a fura d'i ma a ka cɔri bɛ laada ye ayiwa i bɛ den sɔrɔ fibro in bɛ ban dɔw bɛ yɔrɔ kɔnɔ bɛ mankan bɔ kɔnɔ bɛ funu fo sin bɛ minɛ ka fa mɛ u tɛ den sɔrɔ i y'a faamuya dɛ n'i nana ne fɛ ni ne y'a tarate k'a d'i ma n bɛ daga don ka d'i ma i b'a min i b'a ko i b'a min i b'a ko ni ala jɛnna n'a ye a bɛ ban inshallah san ye denkɛ limu loolu loolu moom dal na xel mooy ci nena manam jigen bo boo bir be new bee jigen léegi nga gis jigéen boo xam biir dafay biir dafa rëy ba ñu niñ yaakaar dafa nekk en état fekk nekul en état bir bi yëpp ngelo kess mo ci nek mom da koy dind bam mu set wa mbiru rab la nena manam jigen bi nga xamantene aussi euh, fo amé borom kër rek mu daal lay bàyyi toog toogal papa borom kër ñu lay bay rek tukali ñu tukkali umay bàyyi ñëwee fi dina din la nga am te moo nekk ci yow manam walu ngora tamit aussi nee wax amna ay façon façon bi nga xam ne walé la ak bi nga xamante ne euh, da ngaa foo sa ndaw ba amatoo doole ak bi nga xamante ne dem nga ba mu yàgg mu dab la ak bi nga xamante ne dañ laa jabat maanaam dañ la teg teg loo xamante ne mooy leen mooy tax doo doo doo doo mën a gis sa doo mën a gis sa bopp nee na ku fi ñëw boo boo fi ñëwee tamit aussi sa sa aajo dina faju kon ngeen dégg wax jooju nga xam ne am na solo fii ci Petit Mbao la wax naa ne léegi leen numéro dinañ ko affiché waat ci euh, si écran bi su ko defee rek ngeen daal di koy jël xam naa ne aussi piram dina yomb lool ndax euh, taw féex la dinañ ko ko laaj léegi-léegi mu def ci yërmande waaye daal xam nañ ne daal moom fii moom euh, wax dëgg yàlla fii la mbir yi nekk fii la mbir yi nekk macha allah Traoré. saa yi. Mhm. il a prix. jàng prix prix baalal wala prix taala. ani séance ni fenkol. bon prix baal la. Uh-huh. me piri n'i nana n'a bena piri min nɔ o de bi fo i y'a faamuya dɛ piri susali t'a la kuwa parce que furakɛlikɛla furakɛlikɛla mo mɔgɔ n'i fura kali ke i fura kali de kɛ furakɛli mɔgɔ tɛ se ka kali lasara i y'a fo dɛ mɛ komi an bɛ jamana minga jamana bena tabulu taabolo don i y'a faamuya dɛ ɔ n'i nana na am bena piri la i b'a sara ne kɔni ka prix sɛrɛlen tɛ ah. pisiki adamaden n'i y'a mɔgɔ furakɛ u bɛ kamanagan ma to i y'a kamanagan i y'a tugu ala de b'i sara mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ sara i y'a faamuya dɛ bon ni ala n'a kira jɛnɛ n'a ye et puis o ye kelen ye fana mɔgɔ dɔw bɛ u sugunɛ kɛtɔ a bɛ digi u la a bɛ digi u la n'u b'a fɔ sopisi a sugunɛ kɛtɔ a b'a jeni kosɛbɛ a b'a jeni kosɛbɛ a bɛ cɛ la a bɛ muso la muso dɔw bɛ u b'a fɔ ma ko leminanbo leminanbo fana bɛ muso la n'a bɛ muso la a b'a dimi a ka hakato kuma bɛ na ɲɛfɔ cogo dɔ kan n'a taara sugunɛkɛ la a bɛ dimi n'a bɛ n'a ni kafoɲɔgɔnya kɛ a bɛ digi a la toro n'i nana dɔrɔn ni n'a fura bɔ ka d'i ma a bɛ ban inshallah kon ngeen dégg loolu kon wax ji leer na maanaam fii moom ku fi ñëw moom boo fi ne sa problème nañ ko seet te it am nañu ay rawxaan ñoom mooy fi ma leen doxal ñoom léegi léegi léegi mooy fi nga moo am musóor bi euh, sër bu xonk boobu ñooñu ñoo ñooy ñooy xool li nekk ci yow wax ko ko moom mu wax la li nga xam moo nekk ci yow ñoom ñoo koy wax aussi ne ko lii nga koy laaj lee nga koy laaj lii lay rey wala lee lay def wala la lay def après moom mu door a moom nee na lu ko lu lu wóor sa wóor mooy que fii moom képp ku fi ñëw moom du la bàyyi nga dem noonu ta ta ta fajul sa ajo maanaam daal noo euh, ñëwee rek moom dina jéem a comprendre ba dimbali la ci loolee donc ngeen gis ne rek fii ñu dugg tey. muy néeg boo xamante ne xëy na tuuti na lool nag ci yaatu wi waaye nag ndëy na lool ci baatin ndax euh, fii lépp a ngi fi buñ ne jinne ay mbir ak fi gis ngeen euh, loolu ngeen gis noon foofu noonu moom mooy fala fala fala jinne di ko wuyu si euh, fii fi mu toog nii nga gis lii mu yor nii mooy zaaru car gen la maanaam loolu noonu ay mbir moo ci nekk nañ ko ko laaj nag mu expliqué ñu mais xam naa daal lii daal du du du loo xam du ndaw la ay mbir ay mbir moo ci nekk ay mbir a mbir dinañ ko laaj saa yi ila ñuy fenko ñi euh, ñi euh, ñi fenko do saa yi ni fenga mi flen ni ko ñi uh-huh. bayda di bayra bayra uh-huh. ya fu ma de ñi uh-huh. bayda di ni bayda baren de la do do fereke la ñoro ni be ibi fereke ube be yorolo ibe iye mugo bari ba fe kam mugo ka gini ga de ka feerekɛla mhm. i bɛ jama ɲini de la mhm. n'i nana ne b'a baara i b'a ne b'a baara mhm. bayida kɔni bayida fan o fan cɛ do o muso do o n'i nana ne bɛ bayida baara k'a d'i ma bamananw ka fɛ ko ginikan mɛ an b'a fɔ ko bayida i y'a faamu dɛ i bɛ feere kɛ i ka sugu man di uh-huh. i bɛ kɔmɛrisi kɛ i ka sugu man di u bɛ i bɛ taa jama baara la i tɛ jama sɔrɔ i bɛ sanu ɲini i tɛ sanu sɔrɔ nibaab nibaab bi la jëlee kay. ah alhamdulilah na la jëlee naa la. alhamdulilah ah, ngeen dégg loolu kon loolu leer la. <laughs> maanaam euh, gis ngeen àdduna bi boo amee bu sa yaram feesee benn ak lëndam foo dugg nit ñi jéppi la xam li waral loolu da nga amul bayra amoo leer maanaam nit foo dem rek nga neex nit ñi rek loo laaj ñu daal di la koy jox. kon nit ki foo nga am bayra bayra dafa baax ci doomu aadama nit ki da nga war a muslu da nga war di muslu ci cat cat day xaañ bayra bayra boo ko amul. Euh, cata yi ñëw fees fees ci yow dell loo mën a déposé da ngay jàpp ne sax nit ñee lay xeex fekk xeexuñu la léeg-léeg sax nga nga jàpp na nit ñi dañ laa liggéey fekk liggéeyuñu la lépp cat la maanaam lii mu yor ne muy càggeen boobu mu yor noonu loolu lay faj maanaam de dindi ci yow lëndëm def ci yow leer ba nga xamante ne lépp loo lépp lépp loo yóotu pour da dem di ko wuti rek incha allahu rabi yàlla da koy ubbi rapidement te foo dugg rek nga neex nit ñi te boo boo siggee yem say soppee rek euh, lépp loo bëgg nga koy am fa tabarakallaahu léegi dañ koy laaj li nga xamante ne moom mooy euh, ci wàllu njàng njàng bi ndax fu mu toll nii génération bi suñu jeunesse bi euh, bëgg nañ lool ku leen jàppale ndax man dama leen di kaasal ñoom ñooy yori ëllëg réew mi te it euh, pour nga yor ëllëg réew mi fokk nga am xam-xam bi fokk nga mën big bi mën kaye bi mën kaye beeg mën big bi dañ daf ñuy soxal léegi nag bu dee moom xam na ci dara dinañ dinañ ko ko laaj jërë ngeen jëf aca bisimila i ko examen ko comme école ol min élève bon élection la min bata école la quoi denmisɛn dɔw bɛ u hakili ka ko y'a mɛn dɛ n'i nana ne fɛ ne ya baara kɛ ka tɛmɛ hakili bɛ diya ni examen fɔlɔ ya examen examen sera i nana ne fɛ ne ya baara examen b'o sɔrɔ i b'o sɔrɔ i b'a sɔrɔ y'a faamuya dɛ o ye n'i nana ne fɛ ne bɛ lajɛli de kɛ ne ta de buri lajali o mm-hmm. ye kɛmɛ naani ye mm. o ye kɛmɛ naani ne bɛ lajɛli kɛ kɛmɛ naani mm-hmm. kuluni o ye kɛmɛ fila ye i mm. y'a faamuya dɛ ɛnsamɛ u bɛ n y'a mɛ fɛ ka polisiya kɔnkuru sɔrɔ n bɛ fɛ ka duwanyaya kɔnkuru ɲini mm-hmm. u bɛ n y'an ka papiye yɔrɔ in na ayiwa a munumunu cɛyara n'i nana ne fɛ a ka ca ni baara kɛ i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ hakilidiya hakilidiya hakilidiya n'i nana ne fɛ mɔgɔ dɔw bɛ dɔw bɛ denmisɛnnin dɔw bɛ n'u taara ekɔli la denmisɛnnin yɛrɛ taara mɔgɔkɔrɔbaya t'a la yɛrɛ u tɛ foyi mɛn u bɛ ee, kalan bɛ k'u kun sufɛ n'u nan'u da a bɛ bɔ u kun na u hakili ka ko toro u mansaw b'u bugɔ k'u bugɔ ka sɔrɔ o tɛ <laughs> i y'a faamu dɛ hakili bɛ mɔgɔ dusukun de la kuwa a bɛ hakili bɛ mɔgɔ kunkolo de la i y'a faamuya dɛ bɔn n'i nana ne fɛ ni ne y'a fura bɔ ka d'i ma ayiwa i hakili hakili bɛ dayɛlɛ n bɛ se k'o hakili dayɛlɛ fura d'i ma inshallah denmisɛnninw b'u masaw bugɔ masaw b'u denmisɛnninw bugɔ bugɔliko tɛ bɔgɔliko tɛ mhm. kalameleyako tɛ mhm. n'u nan'u da dɔrɔn a bɛ b'o kun na a bɛ b'o kun na i y'a faamu a bɛ mɔgɔ kɔmɔkili de la kuwa mhm. a bɛ mɔgɔ dusukun de la i y'a faamu dɛ wala li olof yi kiis kiis lañ koy wax maanaam lii di moom loolu lu ndaw la ci moom manam loolu moom loolu moom xale yi sax ñoo koy foowee ndax loolu xel la koo xamante ne bu am lënd la. ah du chargé la de bu lënd bi lu koy dindi. ma téléphone du chargé la de boobu la ñuy jox nga naan ko rek mu daal di denc yow sa xel ubbeeku normal. Ah, lépp lu ci dugg rek lépp loo xam ne xas nga koo jël sa nopp rek. day daal dugg ci xel gi doo doo ko fàtte ba mu. waaye nag ci mbiru examen yi. nee na képp koo xam ne ñëw moom. ci muy bac bi la muy BFEM bi la muy concours la lu mu mën a doon formation lépp boo ñëwee ci moom ala kulli ali incha allahu rabi ndax yàlla rek a mën da ngay am euh, loolee nga xamante moom ngay daal di euh, wut. kon na sama gars yi élèves yi nga xamante ne euh, suba ñoo yor ñoo ñoo war a yori réew mi te ñu wóolu seen bopp kon nañ fexee ñoo fi nga xam ne mooy Petit Mbao ci Souleymane Traoré kon Iba mun a fula saa yi pour téléspectateur mekkee jibe télé la quoi. Mm-hmm. bon e ko cogo jumɛn fɔlɔ i ko ka mun fɔ i bɛ mun na fɔlɔ i la kiliyan nɔ il fɛn ko bon ni Il nana ne fɛ mhm. ne Il kiliyanw mhm. kiliyan filɛ furakɛlikɛla filɛ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ de kuwa mhm. dusu t'a la foyi ne tɛ lawudi di mɔgɔ ma n'i nana nin don in i ka bana ne t'o ne bamanan de ye parce que furabɔla furabɔla ye jɔn cɛ m'an bolo an si ta tɛ n'o ye masa tala ye mɔgɔninfin i kana kuma ka tɛmɛ ala kan mɔgɔ tɛ se ka ala pilasi ta mɛ i b'i jɔyɔrɔ kɛ i y'a faamuya dɛ dɔw nana ne fɛ dɔw bɛ na ne fɛ yali i b'a kɛ i b'a i b'a i bɛ i bɛ filɛ joli ne t'i waati di mɔgɔ ma mɛ ni ne kɔni y'i ka tiratili daminɛ fo ka taa fi nɔgɔyara ne bɛ ne bɛ furakɛ i y'a faamuya dɛ. ne boobu moom gars yi soxla nañ ko yaafo ma ne dégg nga de dégg nga li mu wax de maanaam o kone client an bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ jura taama kan uh-huh. n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ uh-huh. ko i de kɛnɛ ka don jamana in uh-huh. kan n'i kɔ segira ka na ne fɛ i n'a baara kɛ i bɛ don lu wax maanaam moom du wax kenn maanaam képp Euh, du la ne demal ba suba nga ñëw wala bàyyil ma xool li bàyyil ma fi déedéet boo ñëwee tey tey tey mu mu mu wax la li nga am moo da moo la daal mu fexe koo dindi tey tay tey kon loolu dafa neex kon loolu yomb na ah boo amee problème aussi boo fi ñëwee aussi noo mën a ak noo noo sa kàttan nu mu toll aussi dina ko jéem a gérer ndax liggéeyam. ah kon loolu kon loolu leer na kon sama gars yi. bu kenn ragal ñëw damaa yor xaalis yor nga asu tuuti nag moom nga indaale ko fii ñëw kon loolu wóor na san ila jina hmm. est ce que eka wari bo eka wari bo non neti wari barake ita bo wari barake neti wari barake mais mi na ne t'a fɔ maa ye na ni waa kɛmɛ maa kɛmɛ kelen o baara tɛ ne bolo. aa o tɛ ne bolo. o tɛ ne bolo. mɛ n'i nana n'a ye n'i nana n'i mago bɛ wari la kuwa n tɛ wari yɛlɛma. i tɛ wari yɛlɛma. n tɛ wari yɛlɛma. n tɛ wari kɛ k'a fɔ n'i nana ni kɛmɛ n b'a kɛ kɛmɛ fila n t'o kɛ n'i nana ni miliyɔn kelen n'i m'a kɛ n t'o kɛ ni ne yɛrɛ bɛ so la ne tɛ bɔ ka na ni sɛnɛgali yan i y'a faamu mɛ n'i nana ko an ka nafolo baara kɛ an bɛ sakirifisi kɛ ni ala sɔnna kɔni i bɛ nafolo sɔrɔ. mɛ di waa kɛmɛ kɛ wa miliyɔn kelen di miliyɔn kɛ miliyɔn fila ye n'i nana ne fɛ n'o affaire ne b'i gɛn puisque ne t'o ne tɛ se k'o kɛ mɛ n'i nana ko n bɛ nafolo ɲini an ka sacrifice kɛ pour que n bɛ nafolo sɔrɔ n bɛ se k'o kɛ. Yaasoumé de ko voilà Kosobe saa yi dégg ngeen li mu wax. Euh, dañ ko laaj ndax euh, mooy comme gars lu ñuy def noonu di génnee ay xaalis ak di ëlbati xaalis ak di ko def ci ay leket muy dana bari nee na loolu sax moom du ko def même bu ko mënoon du ko def kon loolu li mu ci bëgg a wax xam nañ ko ay ay zaaru euh, technique ñi xel la rek. mais maanaam nii mu li mu wax ni tey dafa maanaam nit koo xam ne nga bëgg am alal boo ñëwee fii moom dina la woon yoon bi dina la jàppale ba nga xamante ne incha allah rabi kenn du la bel maanaam di nga am alal ba mu neex la. waaw maanaam yooyu moom da ci daal di yëngu mais comme comme quoi que nga ñëw ngay ne 500000 mu def ko 1 million yooyu ma ne la moom doxul ci yooyu te lijjantewul loolu boo ñëwee ci moom pour loolu sax moom dana lay daal di génne parce que moom yooyu doxu ci. parce que euh, yàlla mooy maye il faut que nit ki xam ne yàlla mooy maye mais boo ñëwee ñoom dañ lay won yoon bi incha allahu rabi kon nag ñu nekk fii nga xamante ne moom mooy kër euh, Souleymane Traoré ma waxaal numéro bi numéro bàyyi nii 77 620 26 36 ngeen bàyyi ci xel 70 ngeen def 680 89 13. loolu la loolu lañ fi amoon tey waaye dañ koy daal di jox mu tàggatoo fii si seen émission cofeel gi moo xool leen ko ngeen ànd ceeg Cheikh Becaye ak seen STV mo mɔgɔ dɔw fana bɛ quoi u bɛ pasa u sen kan u bɛ pasa u farisogo bɛ ban u t'a bana suguya dɔn mana sidɔnbɛli fan o fan n'i bɛ dumuni kɛ i farisogo bɛ ban i bɛ dumuni kɛ mais i tɛ fari sɔrɔ i bɛ pasa ka taa pasa dɔrɔn dɔw b'a fɔ ko sidan b'a la dɛ dɔw b'a fɔ nin b'a la dɛ ka sɔrɔ tɛ ni pali kɔgɔra mhm. ale de b'o kɛ mɔgɔ la mhm. pali kuroniki mhm. pali yɛrɛ yɛrɛ filɛ ye kuwa dɔgɔtɔrɔ bɛ dɔ k'a la dɛ mɛ bamananw b'a fɔ ko sayi sayi fura tɛ eh, sayi fura ka dɔgɔ dɔgɔtɔrɔ bolo dɔɔni a farafin fura de ka teli lii na ne fee. Hmm. ne boo furakee. waaw kon nag ngeen dégg wax jooju tamit aussi. <coughs> léegi léegi xam dafa am ñoo xamante ne dañoo mën a lekk lool mel ni sama mbokk bambara yi nga xam dañuy lekk te noonu la ñuy tuutee duñu am yaram maanaam. Eh, booy lekk lu bare bari tam mu leer na doo am yaram ba ba nit ñi di la joxañ baaram naan ah da nga am feebar bi wala nga am feebar bi nee na du doon feebar boobu sax benn rab la rek loo xam te sa biir yaram lay dox eh, sa deret mu lekk ko sa deret mu ciy naan moom lay dundee nee na loolu genre rab la boo ñëwee ci moom dina ko faj mais man na dama fi gis loo xamante ne eh, dama ciy xuusaat tuuti balaa may tàggatoo ak moom mooy lan benn dama ciy gis benn geen boo xamante ne dafa am karaw bu jaune en même temps mu am benn mu am car-car yu ñuul waaye nag ma gis encore ci suufu leket bi xaw ma gars gis nañ ko gis ñu ko suufu leket bi dafa am ay gros yi bare bare gros yoy ña ñoo ko moom dinday ñoo ko wala mom moko yey wala pour client la bu dé pour client client man maa fi j'ai fait partie de euh, téléphone rek ya kon man war naa koo warna a war naa cee mën euh, jël lekk ci saa mbam mi min fa la saa yi euh, mm-hmm. ñi fenkoo ñi mën a fenku ñi mm-hmm. fenko ñi ñi ñi ñi fenko waaw ni ni mɔgɔ min kan pasa jaabi mɔgɔ min kan pasa jaabi la ah. nɛr wa ah. ni nɛri dɔ mɔgɔ dɔw be u bɛ ba mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ a bɛ ah. denmisɛnnin a bɛ mɔgɔkɔrɔba la ah, n'u bɛ taama ko pasa b'u dimi f'u b'u sigi uh-huh. ne b'o furakɛ ni nin ne b'o furakɛ ni nin de ye. b'a i e k'a diyara ɲinan lɔ. ne de b'a diyara ɲinan. Uh-huh. mɔgɔkɔrɔba. sisan e kuro kuro nin woro woro. ni woro min filɛ nin ye nin ye sɔnnikɛlan dugu jɛ o jɛ tile tuuru ye dugu jɛ o jɛ ni mɔgɔw nana uh-huh. ne bɛ haju fɔ a la uh-huh. ayiwa dɔw bɛ na ni misi ye uh-huh. dɔw bɛ na ni ba ye dɔw bɛ na ni saga ye dɔw bɛ na ni siyɛ ye n'i y'u haju fɔ a la a bɛ ɲa n'i y'o worow de ye ta n'o bajuru bulonnen ye filɛ juru filɛ ye nin bɛɛ ye bajuru ye misi juru filɛ ye misi juru b'a la ba juru b'a la saga juru la voilà voilà kon ngeen dégg loolu mhm. gis ngeen buum yooyu ngeen di gis noonu ay buum yoo xam ne dañ ko takkoon ci ay ay ay ay baatu bëy wala xar war nag yoo xam ne dañ leen na ray mais buum bu mu fi teg nii buum bi day day représenté li nga xamante ne moom moom lañ fa takkoon kon mu doon benn zaaru baatin waaye guro yi maanaam tuur la koo xam ne liggéeyam ci groupe bi la aajoo groupe bi ni ñu ko tegee noonu foofu noonu ñu ngi koy liggéey maanaam ñu ngi ñu ngi def ci moom li nga xam ne moom la ñu def ci moom te fekk na moom neew fi maanaam groupe bi muy indi noonu moo koy représenté fii mais maanaam ay neer yi métti ak ay yooyu noonu nga am problème mu problème mu yax ak yooyu noonu yëpp mooy eh, geen bi ngeen di gis ni ci la lay fajee ci lu yomb insha allahu rabi acca san san mbe mbe mbe mbe mbe mbe konton la mm-hmm. mbaa fo lay ani ini baraji amen eh alma alay so ma ban jata amen rabbi amen rabbi ila hormoto amen eh, say bu muna fola ila dernier mot mo sisa mbena nga dere moy mi mi mhm. awfo bisi mhm. bamanan ko kote mhm. ko n'i y'a mɛn ko jɔn ko sababu de do ni sababu te foyi te nya am nu kɛra n'aw na kan filɛ n fuli do mo ka berkadi bema jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma fitinɛ min bɛ n'o bɛ jamana kɔnɔ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen kisa ma ala ka bɛɛ lajɛlen kisa ma ala ka jamana ala ka ta fanga di jamana ɲɛmɔgɔw ma ka jamana ta fanga di jamana ɲɛmɔgɔ ma ala ka jamanadenw kan bɛn farafina farajɛla yarabi kɛlɛ jugu min bɛ nɔgɔ ala ka ji k'a tasuma na ala ka ji k'a tasuma na mais bamaran ko di eh, nkunka tu hmm. eh, wari kana nkunka tu wari kana wala bamaran ko kunkunko <laughs> to ma don ko ko hali mɛ <laughs> ah. ko hali mɛ ko wari ka sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ <laughs> wari bɛ sɔrɔ wari sɔrɔli bɛ yen a ɲumanama bɛ yen a jugunama bɛ yen i y'a faamu dɛ n'i nana n'i ko a ɲumanama an b'a k'o ye n'i ko a jugumanama an b'a k'o ye an kɔni tɛ mɔgɔ faga wari nɔfɛ ne tɛ mɔgɔ faga wari nɔfɛ n'i nana ko ne ma ko n ka ke wori mhm. ne ba fo ne ta i ni ka die no mo wore ni ka dai ti ya fo ngode e ni ka die no mhm. e bi na ki ga mo wore ke wori o mai kosobe ne toke ni na na ne bi gen wallahi kosobe ya fo ngode kosobe ni na no poiso ne ala ma jagere me fo mo wuli kam pisi ne tula masha allah ya fo ngode masha allah wala de ma fura ke la koni ye bela jere jigi ne ka dale le le kuma be alhamdulillah ndi baara kɛ don min o ye juma don de ye juma don uh-huh. ni juma kɔni jiginna kɔni ala ko uh-huh. k'an ka juma bonya uh-huh. ni juma jiginna n bɛ baara commencé n'o tɛ hali su dugutila n'i y'a ne wele ni banabagatɔ ni degunnen b'i bolo n'i nana ne fɛ ne bɛ bɔ i y'a faamuya dɛ voilà. moom du ci liggéey ak loo ko mën a fay mu doon million na doon milliard du ci liggéey waaye nag euh, jour yëpp nag na ci liggéey 24 heures sur 24 nee na ku ci am problème même bu dee 2 heures wala 3 heures du matin boo ko woowee rek a la wuyu jox nañ leen numéro bi dañ ko affiché wax ci suuf écran bi ngeen bàyyi ci xel kon nag lii lañ amoon tey pour indi leen ko ci émission cofel gi xam naa tey cofel gi wuyu na boromam ah dugu nañ tay fi fenen la dugat fenen inshallah rabbi allahu nak dañuy daldi gëreum gërëm ñi nga xamantene moy babakar daf bi nga xam moma eh, ñawal yere bi jox mako ne ma nako sol ta fayuma ci dara waaye di nuyu family waaye di nuyu sama wa groupe sama équipe wa Sen STV senegal Streaming TV ma ngi leen nuyu bu baaxa baaxa baax di nuyu sama sama sama sama sama Eh, tarixatul xaadiriya di nuyu waa Ndiassane bu baax a baax di nuyu sama xalifa xalif général des xaadir Cheikh Al di ko nuyu bu baax a baax di nuyu porte parole am eh, di Pa Abdourahmane Kunta waaye nuyu sama sëriñ bu baax a baax di sëriñ Mouhamed Kunta ibnu Pa Abdourahmane Kunta waaye di nuyu dem ba M3 fekk fa ki nga xamante ne mooy Malado di ko nuyu di nuyu waa Traoré Traoré yëpp yi fa nekk di nuyu Alaaji Jaase ba eh, m di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sama waa kër nag waaye sama yaay nag tey mooy anniversaire am Euh, mooy la 7 le 7 euh, decembre xam nga ñoom dañoo décembre ba mu ëpp waaye may nag euh, di ko jaajëfal di ko wax ne yaay booy dundal bu baax a baax a baax di nuyu Mambo DG di ko nuyu Madiop maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xamante ne mooy El Hadj El STV